yéenekaay gi ne na ab rapport la boo xam ne Fonds des Nations Unies pour la population ñoo ko daal di génne ñoo ko xayma nee nañu ci déndu Afrique lu toll ci fukk ak ñeenti millions ay doomu aadama danañu ëmb at mu jot ay kaay gi ne na ñi nga xam ne ñuy ëmb ci anam boo xam ne bëgguñu ko loole nag ñu si bëri si ñoom dañuy avorté maanaam dañuy yàq ëmb ba bi ñu ko xayma téeméer bu jël toll na ci 60 pour cent yéenekaay gi di réew mi ko di cee nee na nag bu loolu lépp passé dafa am ñoo xam ne dañu lay ëmbal ba pare daal di daw seeni responsabilité lànk kandaare lànk ne ëmb lu ma nag bëri na fi lool journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ak doom ji nga xam ne mënu wax ni kii mooy baayama ñooñee ñooy victime yi ñooñee ñoo ci loro yéen kaay gi du Sud Quotidien xëy duñu xibara naan ñu ni ki démb ca conseil des ministres ba njiitu réew mi di président Macky daan nay ërtal ñi nga xam ne ñooy ministres yi ngir nag liggéey yi nga xam ne sumb na ko liggéey yooye ñu daal koy baral maanaam daal di li nga xam ne mooy mbir yi ndax nag mu gaaw a yegg lu jëm ci wàllum réforme universitaire yi loolee tamit Macky Sall nee na nañu ko daal di jëmmal électrification ak wàllum mbay mi yéen kaay gi ànd gësama nee na bu ñu waxante dëgg Macky Sall dafa jàpp otage réew mi di Sénégal ndax nag ministres yi ak directeurs généraux yi réew mi jamono ji dafa bloqué maanaam Sénégal demul ci nga dikkul mbay laara te nag Macky Sall lan moo tax mun ta tabb ab premier ministre loolee moo jaaxal gaañ yi yéen gi de la Soleil njiitu réew mi di Macky Sall jamono ji nag li mu bëgg mooy fi ak weeru mai mboolem accord yi nga xam ne si fe woon na ko ak syndicat yi lépp mu daal di koy kaay gi di réew mi ko di jee nee bi nga xam ne moom la ñu def contrôle judiciaire mu lànkoon kandaare dootul signéeti ndax nag ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllum yoon ci réew mi dafa am ñenn si ñoom ñoo xam ne dañuy jalgati yoon waaye nag Ousmane Sonko mi nga xam ne neewoon na dootul signé léegi nag nee na daal dina dem di signé ndax nag déclaration bi nga xam ne defoon na ko nee na jubluwaay ba la mu sa jubluwoon nee na am na ko ndax nag dafa gisoon na ñi daal dañu koy fowee bi mu defee nag déclaration nee na gis na ne doyen des juges daan nay jël dossier bi nag fas yéene ko vidé Ousmane Sonko nee na amul benn yoon boo xam ne am na nag ab jubluwaay ngir nag yàq li nga xam ne mooy justice su réew mi wala nag tuumaal ay magistrat waaye nag dafa am ñenn ñoo xam ne ñoom la ñuy def loo ay yoo xam ne liggéey salte salte la kaay gi xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko nee na nag danañu ko déglu waaye nag ñi nga xam ne ñooy ay farandoom nee ma ay militant ak ay sympathisant maanaam nañu dal dal nañu dal jërul ñu koy gunge ndax ab déglu rek la yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na yàggatul dara Ousmane Sonko doyen des juges dina ko déglu yéene kaay gi di Le Quotidien nee na juróom-benn fan ci weeru avril la ñuy déglu Ousmane Sonko yéene kaay gi di L'As nee na senera daan nay tere Ahmed Aïdara mu def revue de presse ndax nag waa sénéra nee na ñu Ahmed Aïdara fa jéng ci mbir mi yéen kaay gi di réew mi quotidien Karim Wade daan nay félicité bu baax a baax Macky mi nga xam ne mooy jël ab star tuddee ko baayam maître Abdoulaye Wade moom Karim Meïssa Wade ca Qatar nee na yàkkamti na loola gis équipe nationale bu Sénégal ñëw fii ci coupe du bi ci réew moo xam ne nag liggéey nañ ko ba mu mucc ayib yéen kaay gi di Vox Populi xëy samp ab laaj nee na nag jaajëfal yii nga xam ne Karim Wade ma ngi koy jaajëfal Macky la yéen kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu étudiante bi nga xam ne moo doon jàngee université Gaston Berger te ñu nag daal di koy rayé journal bi ne na ki ñu njort ne moo ko def Yahya Seck lu tudd ñi nga xam ne nag ñoo yor dossier boobee enquête bi def nañu reconstitution des faits maanaam nag moom Yahya Seck moom mu misaal fan la jaar ak étudiante bi ba daal di koy faata yéen kaay gi du l'Observateur nee na Yahya moom nga xam ne moom la ñu njort ne moo rey étudiante bi chauffeur ba nga xam ne moo ko yóbbu chauffeur boobee tamit xam mooy café Touba journal bi nee na nag ab valise la ko dugaloon yéene kaay gi di Rewmi Quotidien ñi nga xam ne nag ñooy agence national de la statistique et de la démographie ñoom nag nee na ñu lu jëm ci wàllum chômage gi jamono ji yokku na lool ci réewum Sénégal yokk na lu toll ci 7 pour cent journal bi nee na ñi nga xam ne amuñu liggéey ci réew mi ñoo ngi gën di yokku yéene kaay gi di Dakar Times nee na ñaari fan rek lu ëpp junni ci ay doomu réewum Niger ñoo xam ne jëlee nañ leen fii ci Sénégal yóbbu leen sa seenum réew dañoo ñëwoon Sénégal ngir nag di fi yalwaan see kaay gi na lu toll ci quatre cent soixante dix ci ay xale lu toll ci quatre cent ci ay jigéen lu toll ci cent soixante deux ci ay góor yéen kaay gi nee na li nga xam ne moo gën a doy waar nag ñi nga xam ne ñoo nekk Niger maanaam dañuy jël seen doom yi jox ko ay nit ngir seen doom yooyu mën a ñëw fii Sénégal yalwaana dañ koy def location maanaam da am na ñoo xam ne dañ doon loué seen doom yi weer wu jot ñu daal leen di fay maanaam mooy ñi nekk Niger te mënu ñoo ñëw Sénégal bu ñu gisee kuy ñëw Sénégal daal dañuy mbogo mbogo seeni doom jox ko ko mu àndaale ko bu ñëwee Sénégal di yalwaan weer jot ñu daal di koy fay yi bi nee na doy na waar génn xeetu doy waar goo xam ne fu ko waaye natt daana koy paase yéene kaay gi di sunu làmb ñu koy fekk fa Malick Niang moom nee na nag bàyyi na bëree nee na buñ ko doon fay sax cent milliards moom Malick Niang nee na dootul bëreetee ndax nag nee fukki at ak ñett ngi nii maanaam bëriwu te benn defar rek lamb ku ñu ko booleel mu lànk bañ a bëri ak moom moom Malick ñaa nee na bàyyi na bëre loole nag ab décision la boo xam ne daf koy jël te nag ay supporter am il faut ñu accepter ko nee na société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen seen revue de presse